mom de amna licence waye du génn. du liggéeyal sa liggéeyal ab tubaab. du génn di liggéeyal ab tubaab wala ken xalaatu ko sax. neena na xalaatu ko sax. lu reey la. neena na lu reey la. am solo la. lu am solo la. te livre d'or ba itam. ci livre d'or bañ amone fofu itam. at bind naa ca. nee ci at mom mom mi bind na ci. zimam wara asri ladallaahi fi yadi. mi ngi bindon zimam wara hasri asri ladallaahi fi yadi. wa rumtuhu min maalikin qadib al ani. wa maa rumtuhu min maalikin qadib al ani. neena mom mi moko ci ko livre d'or ba. 1982. ci 1982. kon membre yàgg na kon moom mii kenn gënu koo doon membre waaw lu am solo ñu kenn gënu koo doon membre te it sëñ Abdou Lahad livre d'or bii muy wax ma nga ca daara ja tey jii bu ko jot gi maye woon te bu ñu defaat beneen assemblée générale archives yooyu yëpp dañ leen koy génneel tegal leen ko livre d'or boobu bañ ko yóbbulee sëñ Abdou Lahad ngir mu signé ci dafa wax ne. man de seen daara joojee bokkuma ci ñi nga xam ne damay ñëw ba foofee xool ko door koo xam bokkuma ci ñi nga xam ne dañuy ñëw nettali ma la ngeen fay def ngir ma door koo xam dama koo xam mu ne yàlla suñu borom moo ma xamal ne nangu na ko rasulillahi sallallahu alayhi wasallam xamal ma ne nangu na ko sëñ tubaa xamal ma ne nangu na ko képp ku baax it xamal ma ne nangu na ko kon loolu moom mag mag ñi nekkoon ci daara ji xam nañ li may wax jërëjëf <laughs> kon jërë ngeen jëf kon ñëpp ñu ñëpp seen loxo sëñ sëñ sëñ sëñ Thierno Khaj ñaanal ñu amin amin amin amin amin amin amin amiin Mbakke amiin Mbakke amiin yaa rabbal alamin jërëjëf ki kon si Mourtala wéyal ñu ngi ñaan tamit ñu war a def présentation liggéey bi nañu waaj. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. kon ñu wéyal liggéey bi ci jox kàddu gi ki nga xamante ne mooy sëñ Saliou Mbuub sëñ Saliou Mbuub nag am na émission bi ñu doon def ba génne ca ab lettre sëriñ Abdoul Ahad Mbacké moo ko bindoon daara ji lettre boobu mu ngi ko bind lettre boobu sëñ Massaye Sène ci moom la dama doon fàttali ne bërkaati dé bu ñu doon def ci almuridiyya génne ab lettre boo xam ne sëriñ Abdoulaye Mbacke moo ko bindoon daayira des étudiants mourides te ca kaw mu bind ci a ah, sëriñ Saliou Mboup sëriñ Saliou Mboup moomu mooy sëñ bi toog Euh, lettre Bobo tamit ab tontu la ci lettre bo xamne ne daayira soutien mouride di ko bindoon te moom ko mu demone ci seigne bi ba seigne bi ne ko wax ngeen ma si di xaar lettre bobu le 4 février la 1976 motax mo waxone soudé ne su dee dé am acte de naissance acte de naissance Bobo. mo lay wax ne lettre bobu kon na jox kàddu seigne salou Mboup mu ñëw touti ci ay kàddu mi jotale ci walu woowu wa assalamu alaykum rahmatullah euh mbok yi ñu ngi ganna bi nuyo Cheikh mohammed murtada Cheikh mohammed Mountakha mi nga xamni moy mooy général di Mouride di nuyu doomam ji fi jóge léegi di ko sant di sëñ maam Thierno ak kilifa yi fi teew yëpp euh, ñu ngi nuyu suñu wëllëre itam sëñ xaali jaxate ndax daan di faral di ànd ci liggéeyu sëriñ bi ak sëñ bas bu sëriñ Murtada kon bi ñu leen nuyoo ñooñu ñu nuyu nag waa Hizbut Tarqiyyah ci bu ñu tuddee sëñ Youssou Diop tudd nañu membre yëpp ñi ma ci miin ak ñi ma ci miinul yëpp euh, bés bii nag man mbégte la ci ñun ak sant itam nag damay tàmbale rekk fii sëriñ Moustapha Sey doon wax sëriñ Abdou Lahat lépp ci moom la tàmbale ndax ñun booba euh, ndar la ñu formé daayira mubaaraka bi ñu doon tudd sànq te sëriñ Ablaye Sarr jiite ko sëriñ lay dafa dégg annonce su sëriñ Youssou ci woote bi xaarul man mu daal di ma woo ni ma sëñ Saliou daal loo bàyyi woon loo jàppoon na ko bàyyi te foofu bu la fa kenn jëkk daal ma booleeg sëriñ Mar ndax xam na ni mu demee ndax. ñun foofu la ñu jànge ak taalu bi sëriñ bi moom lu muy def rek dafa am ku mu ko jaarale 1976 nii ko sëriñ Moutalla Sey waxe ci lañ taxawal daayiratu Jàmmurit 4 février lu ko jiitu booba dañu bind lettre wolof sëriñ Abdou man maa ko bind wax ko ni ko taxawal nañu daayira moo xam ne dañu fas liggéey Sëriñ Tuubaa ci université wolofal laa ko bind waaye sëriñ Abdou Lahad moom bi mu ñu tontu français la ñu tontu xam nga loolu am jàngale la mu tontu ñu français li di gis am nga ci baat yoo xam sa gars yi génne nañ ko la lañ ci gën a frappé moo doon je vous assure que de ce qui touche Serigne ba mu ko waxee ñun sax xawoon nañu jaaxal loolu mi ngi ko firi 7 avril 1982. yàlla man na ko yàlla def na daf ma téye ci këram ba bis boobu ñu dem Touba Belel mu ni ma nag saaliwu yëdd tey danaa la leeral dara mu ni ma xanaa ñu bare dañu wax ci ni eh, seen dikk gi ngeen dikk sëñ Touba mu ne xanaa ñu bare dañu xëy na xane xëy na sax am na ñoo xam ñu ngi wax naan ci archive yi ngeen ko gis ak yooyu ma ne ka ah, am na ñu koy wax mun ma demeewul noonu de mu ni ma danaa la leeral tey ni mu demee daal di wax xisa bu gudd sax boo xam ne danaa dégg sëñ Bas mu sëñ Abdou Khadir mi di ko wax sax muy wax bi sëñ sëñ Abdou Lahat di wax ni mu ni bi sëñ Touba nekkee Thiéyène dafa am administrateur bu fa ñëw ne boobu tubaab bi yabal ko ni ko demal ñu nga seetal nu sëriñ bi lu lu mu nekkee foofu nee na am fa fukki fan ak juróom ci Thiéyène ne ba mu fa amee fukki fan ak juróom ne dafay dànd nag dëkk bi foo xam ne kenn du ko gis kuy dugg doo ko gis kuy génn doo ko gis ne am fa fukki fan ak juróom ba mu ba ne mu dem euh, Daaru Salaam booba maam daaru mën naan gii fa la maam Thierno ne ne mu def fa li ñu toll ndey ba fa jógee mu dem ndànd booba Cheikh Rafal fa la nekk ne ma def fa lu ñu toll ne boobu sëñ gaawaan euh, mi ngi euh, daa fàttali ko di moom waaye dëkkam bi euh, hmm? gaawaan ne ma nga gaawaan mu ne mu def fa fukki fan juróom ne bi mu paree nag mu def rapport ne li ci gën a yem ci rapport bi dafa wax ni man de gannaaw bi ma defee fukki fan ak juróom ci Serigne Touba ak fukki fan ak juróom ci ñii ma tudd mu ni li ma gis daal mooy ni bu bu ñu tardé ci ñii mu yar mu ni ndax gis naa ni yarin yu benn la gis naa ni bu dee Cheikh Ibrahima Fall bu dee Maam Thierno bu dee borom gaawaan mu ni ñoom ñëpp yarin yu benn la mu ni li ma am solo kon mooy ki leen yar mu ni ki leen yar nag di Cheikh Ahmadou Bamba mu ni gis naa ni moom buy dox du gestu dafa dëpp jëwam rek ci kanam du gestu mu ni loolu nag li ko waral mooy moom yàlla rek la jublu dootu jublu àdduna mu ni waaye mu ni gis naa itam ni leer gi jàpp ci boppam dem na ba seet naa ko mu dem ba juróom-ñaareelu asamaan tubaab bi mooy wax mu ni gis naa leer gi jàpp ci tànk yi te dem na ba juróom-ñaareelu suuf mu ni mom euh koku mom kenn mel na moom mu ni léegi li am solo moy ñi mu yar mu ni ñi mu yar nak gis naa ni bàyyi ko ca àll bu bi muy defar ko melni ni wala Cheikh Ibra wala mam cherno wala borom gawan mu ni wóorul li gën dal moy fexe ba génne ko ci allu bu xonq bopp yóbbu ko ci dëkk ak teeru bo xamni ni ay talibam daanu mën jaxasoog waa teeru ba namu mu doon yaree ñu ni mu doon defar ñu mel non dootu ko mën defar sëñ blahat wax ni loolu bi bi ne bi bi bi nga xamé nak teural tuba bi def na rapport bobu neena suñu borom ni sëriñ bi loolu bu ci am dara la tiss ne ko bàyyi ni ko bul la jëlé fi ne mu blahat tek ci ni loolu mo ndi ramu ma siri ilaa Jurbel la dal sa Chine لو عين سر ما في سير ما غرم موني منك سير لو عين سر بوجن وخ موني ما موني ما مو ما موي موي سكر موني نخ بيغا خامين جيلي نيو وخ نان دنج كوي جيلي تين يوبو كو نجارين موني سيني بروم دا فوخ نيكو دا فوخ سيرين بي نيكو بول سي ام لوتيس نخ بوبو توبا بي دن نيكو دن ني كوماندان بي داف تي تكني ادمينستر داف تكني mu ni su boobaa buñ ko yóbboo ndiarim gone yi nga xamni ñoy ñoy ay gonem dañu fexe ba ubbi suñu école duggal leen fa mu ne bu ñu dootu ko gëm xam nga tubaab xamna na xameram mu ne bu leen joxé buñ leen nampalé sunu suñu xam-xam buñu maggé dootu ko gëm ne mu ni mag ñi nak dañu fexe ba tagalé ko mu dootu leen dootu leen gis jigéen ñi nak mu ni su boobaa mu ni jigéen amul solo sëriñ la tek ci ni ma boo gisee jigéen ñi mel ni sëñ Tuubaa loolu moo waral loolu xeeb googu ñu leen xeeboon ni jigéen ñi amuñ solo moo tax jigéen ñi mel nii ci yoonu sëriñ Tuubaa mu ni nag bi ñu tëraloo boobu xalaat suñu boroom nag ni ko ni sëriñ bi bàyyi leen ñu dem law aynu sirra maa fi sëyri maaraamu bu ñu xamoon ni tax ñu di ko yóbbu njaareem di koy jële ci yóbbu njaareem mun kon duñ ko def buñu xamone secret bi duñ ko def seigne bilan ni ma secret bi moy mu ne suñu bon bu wax ni seigne touba ni ko dafa melna na yow mi yaron sey jur tëj leen sa keur mu ni nga fop ay buum raccantal ke ci jur gu nek mu ni ab satch ñew guddi satch leen te xamul ni yow da nga da nga da nga raccantal da nga yew buum sen tank raccantal mu ni mu ni bu satch ba deme nak ba ba defee ne raw la ne nga xëy yow fekk ne nga di ñoteet ñu mu ni ma yéen noonu la leen def da leen a sàccoon waaye xamul ni yéen alalu borom mu ni ma alalu alalu Sëñ Tuubaa mu ni moo tax bi mu leen soxlaa ngeen dellu siwaat ci moom mu ni moo waral seen yëngu bi kon loolu mooy moo mooy lii lépp rek wax naa itam ni keroog ne am na beneen baat bu ma waxoon itam keroog bi ñu jëkki ziyaare ji sëriñ Abdullah Touba Belel dafa dajale mag ñi fi nekkoon te sëñ Touba yaroon leen muy sëñ Cheikh Fatak ak sëriñ lu Amar ñooñu ne fàttaliku naa ci sëriñ Blaat yi yendo woole ni leen dama bëgg ngeen ñëw ak Touba Belel yendu si ak man ndax dafa am gone yoo xam ne dañuy ñëw fi man ma bëgg leen teral ba ñu lang ba mel na gone yi yéen na yéen ñi fekkoon sëñ Tuubaa ba lang waaw loolu nag moo ndi lii tey ji nga xam ni kenn dongo ñi bettuñu far lang googu mu waxoon nga xam ni nee dama leen bëgg teral na mag ñi ni sëñ Tuubaa teraloon gone yi jëkkoon ñëw ci moom ba lang loolu moo waral lang gi nga xam ni tey jii kenn koo ci gis dongo yi bàyyi na léppam dëkk Touba ba tey jii mooy liggéey bi Hizbut Tarqiyyah yu di kon loolu doy naa sant yàlla et li ci des nag mooy ni li ma ko wax rek alhamdulillahi rabbil alamin ndax cosaan la sewoon na lool ndax bi ñu koy def université de Dakar booba yeneeni mouvement moo fa xewoon ñun bi ñuy fàttaliku bi ñu koy taxawal booba nit amuloon xalaatu naan da ngay sol yére wolof كان انتلكتوال داول سولير ولف بوبي ريتو باب مول لا تصون بو خول سخ فوتو ني جيك ديف نيون بوبن باتاي آه، تي ملوكان وو لا ني ملون وانداري سير ابلاي سارمي مو تامبل سخ دي دي دي نيو تركي تركي وداي المباركه ديكو سول نين نيو ميسكو تي نيو بي ني تاخاول داري ديتيا مورد ني ديكو سول با يفي آه، تور wante bi ñu koy tambali ñu booba goné yi ku jang tubab def ne costume rek nga wara def waye yalla def serigne abdullah bi mu toge di serigne touba mom mo soppi yep ndax discours ba mu jëk def dafa sengor dafa joggé xam nga serigne fàll bi mu bi mu bi mu waccé liggéey fekk fi won sengor sengor dafa demone vacances bi mu ñibissé nak dem jali serigne abdullah bi mu ñëwé jali serigne abdullah sëñ Abdou wax ak moom ay kàddu man booba man élève laa man booba affaire journalist bi rek moom ma intéressé woon booba maa ngi jàngee jàng école cinquième lycée laa nekkoon te man xam nga ni ñi xam ndar man samay wajur kenn du ci taalibe man samay wajur bu góor taalibe Serigne Abba sàll bu Louga la euh, ci ci ci loolu laa judd bi bi sëñ Abdou di wax itam. déglu sëriñ Abdoulaye taxu woon di déglu booba journal parlé laa doon déglu ndax booba bëggoon français bu rafet moo taxoon ma di journal parlé ndax booba ay journalistes yu xereñ si nekkoon Massoud Djibril Ba ak Ibrahima Dem may déglu journal parlé bi te dégg rek ateexu Allah wa ateexu loolu laa dégg ci discours sëriñ Blaat keroog mënuma nelaw ndax booba lu yéeme la booba de ñun ndar ga ñu dëkk ak feneen sax dañ daan wax ni murit jàngul boobu daan ñu bari danaa sax murid du ñu jullit murid jàngul ma dégg suñu laaj bi mu waxee kàddu ko alxuraan jooju keroog mënu ma man sa première réaction mooy est-ce que ndeketi sëriñ murid xam na alxuraan pour wax leen fii fi yoon wi toll woon ma ci guddi ma ni ku mel nii daal danaa kii danaa fexe ba ba jaxasoog loolu ci la ci la sëñ Tuubaa dugg ci man ma xëy. dem jëli dem jësbul xuluub moom laa jël jàng ko tàmbali sëriñ bi sëriñ bi mënatuma nelaw euh, maak samay ñenn morom ñu daal di dem ñu daal di tàmbali di yëngu sëriñ bi sëriñ Ablaye Dieye Cheikh Ablaye Dieye ndax li histoire la Cheikh Ablaye Dieye bi ngeen daan dégg xam ngeen waa Ndar la bu ñu ko diggee di fa dem mu di jox ay bayit waaye nag tarbiyatu dëgg dëgg dëgg bi ki ñu ko defal moo sëriñ Ablaye Sall mi doon tudd léegi moom itam lépp sëriñ Tuubaa سيما لامين جوب مو داغانا سيما لامين جوب داغانا مو فورمي سيرن ابلاي سار بيمكو فورمي با ديكا ييوي مونيكو بو ديمي نار غا دك نانغ فا تاخوال دائره نانغ تودي دائره مباركه لآل الخديم بلا مشاركه سيرن ابلاي دادي نيو نار تاخوال فا دائره بو 1964 سيما لامين جوخ ايتام خاصيدك الهادي ni ko boo demee bu ngeen jàngé ba nopi ne di ñaani al hadi voilà waaw donc bi loolu lu lu yéeme hadi li tax ma di ko signaler dafay dafa tënk suñu doxalin bi ndax xam nga bi sëriñ bi al hadi nee ñu sëriñ tuba mi ngi ko te mi ngi ko bindé ci yéen te ci yéen dafa fekk booba foofu laay jeexale sax ci yéen la fekk xam nga booba bi fa yóbbu sëriñ bi bëgg ñu woon kenn fekk ko fa ku mas a bëgg dem foofu autorisation moo la fay yóbbu nga xam ni du ku ne moo ko fay fekk gannaaw nag tàggale na bëgg nañ ko tàggaleeg nit ñi mu won leen ni jege ma rek taxumaa defar nit ku ma sore ci laa gën a raw ci laa gën a aay loolu mooy habli wali lazina qad taallaqu bi bi li xayri هب لي ولي الذين قد تعلقوا بها بها هدى لغير نطلق لو كنت يكسخ موي آه، يهدي على الصراط المستقيم وبصحيح كلنا بلا سقيم لك خطابي يا قريب يا مجيب يا من به لا زمني خير عجيب خير عجيب نمو السكر به نا عجبا مم يوم آه، امن رجال القران اهل الكفيت doy nañu ci ajab gone yoo xam ne danooy dañoo tasoo dañoo euh, taseeg jamono bu yàqu ñu xëy suba rek positif nekk ci ñoom sëñ Tuubaa nag ne na man yàlla ndax xam nga ahlul euh, ahlul këf dañu nelaw trois cent neuf ans ngir mucc ci ak yàqute sëñ Tuubaa nag ne man yàlla defal na man ñoo xam dañuy dox ak dikk ba noppi nekk ci jub duñu nelaw kooku mooy xayru ajib moom loolu ko yàlla defal kon naa yem foofu di nuyu ñëpp di sant ñëpp maa ngi sant nag Serigne Youssou Diop ndax yaatal gi yëpp moo ko waral sëriñ Atou mi nga xam ne moom lañu ñu àndaloon di liggéeyal Serigne Touba itam muy doon kenn ci ñun ànd ak ñun ba yàlla def mu yore bu Tarqiyyah liggéey ci liggéey bu toll nii itam ñu ngi ñaan yàlla yërëm ko te yéexeñu ak ña ko ña ko fekk ci ci ci armeel yëpp ak ña ko jiitu ñëpp. yàlla na amoon ngërëmal Serigne Touba wasalaamualeykum wa rahmatullah. jërëjëf sëñ Saliou kon ñoo ngi sant bu baax a baax ci seede gi nga xamante ne seede na ko ci niñ ko waxee rek li mu wax ni histoire la lu fi jaar la kon nag ñu dolli sant bu baax a baax ay moromam nag ñu mel noonu nga xam ne ñoo bokk nekk ci cosaan li ba tey jii ñu ngi fi am na ñoo xam ne woo nañ sëñ yuusu yëgal ko seen yitteeg seen pas-pas ay xat-xati jamono tax mënuñoo teew am na ñoo xam ne seen participation sax yónnee nañ ko loolu lépp li ñu wone rek na mooy ñuñ bokk la kon mbir mi tànku dugg moo am waaye amul tànku génn kon jërëjëf seen Saliou yàlla yàlla fay ñu ngi siyaare tamit ak nuyu sëñ Ablaye saar ndax moom dafa bokk dafa jàppee boppam kenn suñ biir ba tax ba mu wooyee sëñ Saliou mu ñëw mu woo tamit sëñ Omar Thiam ñoo ko ànd ci dem ngeen doon samay loxo doon samay tànk foofa kon su ngeen demee ngeen jot leen ko cant bu baax a baax ñu ngi koy dellu nuyoo di ko bu baax a baax sëñ Xaali Jaxate nag moom lañ fas yéene jox kàddu gi moom sëñ Yuusu wax na ko ba noppi ah, duñ ci delluwaat waaye de li may fàttaliku de man de ci ay année 92 93. fekk na ma daaree Kaolack di tëralal ña fa doon jàng bind mu soo si xaar wala soo suban wala naw ñu wala Masaalikul Jinaan xaw ma ndax sëñ Mbàkke mi war na ca bokk sax waaye jamono yooyu daana wër ci daara yi daara ju dem liggéeyam dafa ajoon ci muy déplacé ko waaye daa dëkk bu mu dem tam am daara su demee ngoon gu nekk fa lay dem di fa jàngale xam-xam kon loolu war na kenn la suñ biir kon sëñ xale bisimilah daanaka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 di leen balu xaq di leen baal xaq di ñaan suñu borom mu boole ñu baal di jiital ñaanal saaxibul fadila sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu boroom yokk aw fanam akub wéram gën koo kàttanal ba liggéeyu lislaam bi nekk ci loxoom mu yóbbu ko fu kawe jort yépp te ànd kook moom ci barkeb sëriñ bi eh, di sant suñu boroom bu baax ci jataay bii jataayub mbégte la jataayub sant yàlla la ndamal lislaam la it ndax ndokk bi sëriñ Saliou Mbuub jiitoo indi seede yi mu seede te dund ko te walla yu nabiuka mislu xabiir lu am solo la ci mbooloo mii teew ak ci barab bii ñu teew nga xam ne lépp day dellu rek ci liggéeyal Sëñ juba xëy na comme niñ ko sàkkoo woon bala ñoo àgg ci teemoo yi ci siñaatu lool nag waxoon naa ko sax ca ba suñ borom jëfee dogal ba teñ sàkku woon ko dama ne woon wax ci bu tarxiya mooy wax ci siñaatu wax ci siñaatu mooy wax ci is bu tarxiya yooyu yaar moom doonut lees mën a teqalee waaye isbu tarxiya ci boppam Eh, tawféexi suñ boroom la muy nii sëriñ Saalih Mbuub wax ne sëñ Abdou Lahad ko wax tamit lu wér law xaayanoo sirra maa eh, kon la taxoon ñuy indi sëriñ bi njaareem bëgg ndaw ñi nga xam ne ñoo war a ñëw ci moom ñu gàttandu leen dox digganteem ak moom waaye njàngale mu leer mi ci sëñ Abdou Lahad jàngale bañ demee ba fa gën a ca njobbaxtalul fa gën a rëy ca fa ñuy sànke nit mu xëcc ràccital ga ñëpp dellu siwaat kon lekk amaana bu ko teeloon a xëcc sax dañ naan dañoo teel a dem waaye bu ñu agsi woon université mu bàyyi ba ñu agsi ca njobbaxtal la mu xëcc ñu dellusi euh, ñaare dana bari lool ñu ma ciy laaj ñu di ci wax waaye duma ci sawar lool sax su fekkee du jataay bu mel nii li nga ci xam te dund ko ci ku amul ndimbal boo koy wax du ko gëm day defe ne dangaa far rekk waaye dëgg-dëggi ay jullit dëgg-dëggi ay murit ñu ngi nii toog loolu ñeme naa ko wax fu nekk ndax defe naa 1992 defe naa laa bindu nekk membre ca Mermoz Dakar dund ci at yu bari ba nii ma ñibbisee Touba yor liggéey bii mu gàllankoor dem ga ak dikk ga waaye suñ diggante dara mosu ceene waxtu wu nekk lépp ñoo koy ànd lu fa xew xam naa ko kon seede soosu su wér cëng la nit ku yitte woowut lu dul liggéeyal sëñ Tuubaa mu jaral ko lu nekk daa am mbokk moo xam ne su ma déggee may wax dana ko xam dafa am liggéey bu masa a séq ak Hizbut Tarqiyyah ñu gisee mu ne ma waaw yow mënoo ma woon a wax ne sa gaa yi seen mun jiit bi laa nekku ci mënoo ma woon a wax ne sa gaa yi seen mun jiit bi laa nekku ci mooy doxinu Hizbut Tarqiyyah déedéet amu ci ay ca rek samaan wa taatan mu ne bi nga gisee may dugg ci liggéey waroon nga ma koo wax mu ne ko déedéet moom mos xam la sëñ Abou Guèye wax na ko ci sëñ Muntaxa sànq def ishaad ci wayu ki doon tagg Seynul Abidin ne maa xaala laa illaa fi law lawla tasahudu la kaana laa uhu naamu waaye bokk moom loolu la wax mënoo ma woon a wax ne mun jiitu isbu tarxiya laa nekku ci ma ne ko soo gisee ñu agsi fii ñu agsi loolu moo ko waral lu kilifa gi xis wax jëf rek jëf rekk loolu nag mooy doxin wi eh, itte ji tamit foo ko takk weesu na ko itte ji ndax su dee ñu mel ne man bañ ciy nekk te man koo tuddee njamraaxe nga xam ne suñu nekkoon ci liggéey ba ñëw tubaa ci màggal gi donte amna équipe buñ fa daan yor ci magal waye du tay ñuy dem ci kër ga di ñëw dama daan wax nem damay am kersa ndax ñimay àndal ci équipe bobu waxtu wone sumay ñëw ci la leen di fekk te man damay dem ba jeex tak dem ñibbi te su dem ñom ñaga ci wat ci la leen di bay bu may dikkaat fekk leen ci kon loolu limay wax luma xam la ci itte te li yeme moy lii sëriñ Saaliwu Mbuub wax ne doxin wi ci bi tubaab bii gëstu dem ci kër mag ñoo ñuy toppoon sëriñ bi te ne doxin wi wenn la euh, jamono bi nga xamee ne ñi ngi wëndeelu daara yi Hizbut Tarqiyyah ji la ko tàmbale woon dakaar ba Ziguinchor daanaka daara ju ne ci diggante bi daanañ fa jaar waaye noonu ñu wax wenn doxin wi rekk am ba bi jiwaalo sosoo Kawlax ba na ngay demee Ziguinchor foofi masaana dem itte jë ak mar xam-xam nga ak bëgg sëriñ bi benn rekk lay doon loolu moo ñu daan puus ci dëkk buñ ci mas a dem itte juñ mas a nekk fexe ba jullee ji timis daara ja luñ mën ca lañ fay def ñu def ko fa waaye foofi dem nag fekk fa ay murid yoo xam ne sëriñ bi dong ngay doon seen yitte sëriñ bi doo ngay doon seen yitte eh, sëñ Maxtaar Joxaane Kolda yàlla na suñ borom dolli ay leeram moo doon jëwriñ ja dañuy waxtaan xam nga tàngooru murit rek mu ma